alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wa ala alihi wa sahbihi ajmain bokk jullit yi ñu ngi sant sunu borom bu baax di jullit ak a sëlmal ci muhammad di baalu ak ñëpp ku sunu borom mu boole ñu jéggal ak jullit ñëpp ñu ngi dellu di fàttali sunu bopp leen fàttali mi ngi waaj a ak si guddi gu ñuy fàttaliku guddi gi nga xam ne dañuy fàttali lañuy fàttaliku gane àdduna ci gën a tudd ndéef yi muy Seydina Muhammad ci sunu borom yónni woon ci nit ak jinne mooy di gën a mat ci bindeef yi sunu borom bind yëpp ci jikko ak melo noonu la ko Serigne Touba waxe nee na woowu ak malul wara xalxan waxul am sahara wal mislu xattu lam yura wala yura fis siyeen Serigne Touba nee na ku mel ni moom mosul a ñëw te du ñëw wax na ci wax ju yéeme ci màggal guddi ga ba wax ne ku ci dépensé sa alal doonte benn dërëm la nee na mel nga ne ku teewe xareb Hunayn ak xaswatu Badri te doon dimbali Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaye bokk jullit yi jàngat bi ci war jàngat ñun ñëpp koo xam ne gëm nga ni moom sunu borom yónni woon ci nit ak jinne da nga ko war a jàpp ne menum yow yaa taxoon sunu borom yónni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf yaa taxoon mu jox Jibril alquranul karim mu di ko wàcc ci sayyidina muhammad mu di ko wàcc ci nun jullit ñi kenn ku nekk ci noonu noonu la ko war a jàpp ndax yow man ci ni ko borom bi waxee ci téere bi nee dinaa laaj yonente yi ndax la ma leen yónni woon jotal ngeen ko ñu tontu ma laaj leen yéen nit ñi ndax jot li woon nañ leen ngeen tontu fala nasalanal lazina ursila ilayhim wala nasalanal mursalin ci biir téere bi suñu borom mi ngi wax ba tey ne su keroogee yomal ba ñu indi ci xeet wu nekk ka di seede muy yonente ba ma yónni woon ca xeetu nee na su booba sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëw taxaw seede na nun jullit ñi fa kayfa izaa ji'naa min kulli ummatin bi shahiidin wa ji'naa bika alaa haa'ulaa'i shahiidaa borom bi nee na ña weddi woon sayyidina Muhammad keroog seen bëgg-bëgg bépp mooy ñu maase woon ñu maasere leen ak suuf si yow ma isin yawaddu lazina kafaru wa asawu rasula law tassawee bi mu ard ngir rek jàq ak tiit ak rëccu ak ruus kon yow jullit bu koorey ku dul sayidna Muhammad salaam keroog ci ñooñ ngay bokk moo tax Sëriñ Tuubaa nee na nee na man moom sayidna Muhammad set lu mu bañ rek nee bañ naa loolu fii kulli sayin ba maa yaabaawu abaawu nee na lu mu bëggit loola rek laa bëgg lu mu bañ bañ naa loolu sayyiduna wa sallam ba muy tariloo ibnu masud alquran bu ko agsee ci aaya bii muy fakkee fakkee fa isaa jeena yoon saa sam dafa sëgg di jooy ba roxo yi di tuuru suuf ndax tiit ci responsabilité bu rëy boobu te mooy jullit bu nekk di taxaw yonent bi ñëw seddale nga ne li mu ko yónni li woon jottali na ma ko léegi nañu xool ba xam jëfe nga ko wala déet benn par benn dañuy def loolu ñun jullit ñëpp fi kanam sunu borom yoon saa sam seddal te ku jiite mbooloo itam noonu lay demee yomal xiyam di nga taxaw taxaw ak mbooloo mi fi kanam borom bi nga wax la la boole woon ak ñoom ñoom it ñu wax la la toppee woon ndax bari na ci ànd yi nag ànd boo xam ne ànd bànneex rek ak àdduna waaye du dëgg du ngir yàlla keroog nag la aaya bii di firéeku dëgg aaya bi suñu borom bi wax ne istabara allasina tubiu min allasina tabaw suñu borom nee na bu keroog ñi woon ànd ci ay caaxaan ak lu du dëgg na ñañ doon topp yi bëgg a set wecc ca ña leen doon topp nee na keroog kenn du bëgg a nekk kuy jiite nee na war a wowlu xasaaba wa taqattaxat bihimul asbaab nee na ba wax ndax dañoo gis mbugal mi tege te buumi bànneex yi leen doon boole yépp dagg na ba jeex nee na waxaala la sina tabaaw law anna lanaa karratan fa natabarraa minhum kama tabarrau minna nee na ña ña doon toppee dañ naan cey bu ñu mënoon delloo adduna wante danañ dañ ba set wecc ci yéen ni ngeen daje ba set wecc ci noonu kon ku jiite mbooloo wan leen seen boroom ñoom it nañu lay laaj seen boroom ndax nit jëm yàlla képp moo war a tax muy topp ab nawleem alxuraan moo wax ba tey ne su karaw da nga ne keroog ngay gis xeet yépp ñu bóof fi kanam sunu borom xeet wu nekk ñu di la woo ci téere ba ñu joxoon yonent ba ñu yónni woon ca ñoom wa taree kulla ummatin jaasiyatan kullu ummatin tuddaa ilaa kitaabiha nee na suñu leen waaye bañ ñëw lu ñu leen wax al yawma tujzawna maa kuntum ta'maluun tey lañ leen di fay li ngeen jëfan yëpp bokk jullit yi xisse yi du xisse yu toxoo ci ay maam ak i bàyyi ci alxuraan la toxoo alxuraan mooy waxi borom bi ku ci wedd benn araf mel ngeen ku wedd téere bi ku wedd téere bi génn nga ci diine yi kon ñun jullit ñi war nañu nafaraat bu baax a baax suñu diggante ak sayyidina Muhammad sallallahu taala alayhi ci roy gi ñu royloo fan lañu ci toll waxtu na war nañ koy defar Seydina Muhammad moom ak saabaam li gënoon a rëy ci seen yitte àdduna mooy julli te ci jàkka ja lañu ko daan defe julli juróom yépp kon yow muy jullee fu la julli fekk moo xam ci sa bureau la wala sa kër la wala boutique ba wala ci mbedd mi yow xamal ne royoo Seydina Muhammad yow jullit bi jullit ñi lay romb di baagante seen kër ak ca jàkk ja ci tàngaayu bëcc gi ak seddaayu guddi bu bul jot mukk de bari jot a tax dafa am lu ñu bëgg muy ngërëmal seen borom ak lu ñu ragal muy fitna seen borom ëllëg yow jullit bi Seydina sasam mi ñu lay royloo ku ragaloon bàkkaar la ku bañoonu tooñ la te bàkkaar nag li muy diis diis moo tax nag tooñ ndax ab jullit mooy jëf li ñu tudde bàkkaar su ko tuubee tuub bu sell boromam jégal ko. borom bi sax dana koy jékkale sax ci lu dul ak tuub ci ku ko neex waaye bokk yi ki dul julli moom li muy def ëpp na bàkkaar li muy def ak tooñ la tudd tooñ moo gën a diis bàkkaar ndax tooñ mooy bokkaale inna shirka la zulmun soo ko faatuwaalee amul garab borom bi dana araamal naa sa yaram aljanna doo fa tàbbi mukk bokk julli sayyidina sallam mi ñu nuy royloo jikko yu rafet yépp dajawoon na ci moom nekkoon na di ko dëggu di ko sàmm di ko sàmm ko bëri yërmande di ko maandu lewet tey jàmbaar di ko tedd waxtu wu nekk muy toroxlu jëm ci boromam bari kersa lool di ko dëddu àdduna tabe di muñ kër waxtu wu nekk muy dellu ci boromam jikko yii moo daje si sayyidina Muhammad moo tax borom bi ne ko wa innaka la ala xuluqin azim anas ibnu malik radiyallahu anhu nee na kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam ahsanu naasi xuluqan nee na bindéef yépp yonent bi sallallahu moo ñu gën jikko

doonoon ku ñeewante xeetam bi ba borom bi wàcc ci moom aaya bu mag boobu li laqad jaakum rasulun min anfusikum moo gënoon a maandu itam ci mbindeef yëpp attey sunu borom yi xàmmeewu ci woon Fatima doomam ak kaneen gii ñoon na ne su Fatima sàccoon ma dagg loxoom ñaan na wala si nafsu muhammadin bi yadi yi la wax na Fatimata binta muhammadin saraxat laxat xatu yada foofu la maandu mën a yem doonoon kuy wàcce boppam tawaadu su masaana toog ak saaba yi bu ñu wër ko soo ñëwee doo ko xàmmee ci seen biir soo ko xamul woon bokk jullit kii lañu ñu roy roy ñun jullit ñëpp waaye kilifa diine yi nag ñoo ci war a jiitu ndax ku mbooloo topp ci yow di roy ci yow war ngaa góorgóorlu ba la ñuy roy ci yow nga royee ko ci sayyiduna Muhammad su dul loo su dul loolu ñaari bàkkaar ngay am ndax yaa jiite mbooloo muy roy ci yow ba noppi ngay jëf loo royewul ci sayyiduna Muhammad te fekk xam nga ko suñu borom noonu waa kër Seydina Muhammad sallam man yaati min kunna bi faahisatin mubayyinatin judaaw laa asaam bi defee wa kaana saalika alaa yasiir képp ku indi ci yéen ñaawteef bu leer nee na su ma koy mbugal ñaari mbugal laa koy def te loolu nag nee na lu jàpp ne suñu borom la waaye wa man yaqul wa man yaqul min kunna lillaahi wa rasuulihi wa taxmal saalihan nootiha ajra marratayni nee na ku sax ci yéen ci topp yàlla ak yonantam bi di jëf lu su ma koy fay itam fay ndax yéen ki wax yu gi wàcc ci moom yéen moom yéen a bokk kër kon li ngeen def lépp xam ngeen bokk ci li Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ñu ñu royloo ëpp naa umpale sunnaam ndax ku dugg ci bàmmeel ñu laaj la ku dugg ci bàmmeel ñu laaj la loo xam ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaye ku woyofal sunnaam loo yëkkati borom bi amu ci soxla sunu borom nee na waaye in tuuti woowu taxtadu su ngeen ko toppee rek gindeeku ngeen ku juuyoo moom nag loo jëf borom bi delloo la ko te bari nañu mbooloo topp lañu leen toppe ñoo ko xalaat tuumaal ko diine waaye bokkul ci diine te borom àlluwa ju gàtt nag lu ko yéem dafa yomb lu mu yéem gëm ko fu mbooloo bari mu jàpp ne fa la dëgg féete waaye da ngeen xam ne lu wuuteeg li Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam indi lu mu mën a doon lu mu rëy rëy baaxul mbokk yi lii sos mbir mu bokkul ci diine ku ko def dafa mel ne dafa am lu diine fàtte nga di ko ko fàttali te diine ci borom bi la bàyyi ko jaar ci sax saxam wàcc ci noonu mat na sëkk looloo tax borom bi ba mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun binduma nit ak ne lu dul jàmm daf caa teg maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutimoon nee na bëgguma seen wërsëg soxlu ma ñam ngeen togg di ma ko jox ndax man manu doomu aadama génnul ñaar yii teraanga yi doomu aadama wéerul génn ci poosam jox la ak togg ñam jox la suñu borom nee na soxlawuma ci ñaar yooyu dara soo deful li ma santaane ba noppi te mooy di wàccam ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bokk jullit yi Seydina Muhammad mi ñu ne royloo suñu la nee na fal yaxsari lazina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azaabun alim na ngeen wattandi baax di juyoog ndigalam ndax ku ko def fitne mën na laa dab wala mbugal bu méttee métti jot la ëllëg sama mbokk jullit jort ak defe ak tuxale ci kudul tuxale ci diine yaakaar ju tas yaakaar ju tas rek la lay jural ëllëg ndax jëf ci lu mu rafet rafet fi yow te wuuteeg li Seydina Muhammad sallam indi fi yow la rafet waaye sunu borom amul soxla moo tax Serigne Touba nee na man sannaanal muntaxaa mislul wara foofu wa xumrun Serigne dof dëgg mooy ki jot ne muntaxaa muy Seydina Muhammad sallam moog nit ñi ñooyam nee na kooku dof dëgg la dof bu dul wér la wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa sallam